مولد معصم مبارك محترم تحسيمه ينحتم على سوي تقدم تحسيمه بسنتي يقودنا للجنة بزياد المنة لمعلسي معزمي بسم الله الرحمن الرحيم salaam min allahi aleykum wa rahmatu wa yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu ngeen gisee jataay bii ci barab bu tedd bi ci abiyaat yu tedd yi nga xamante ni moom ngeen doon dégg léegi xel yëpp day dem ci alayhi salaatu wasalaam borom laylatu mawlidi nabi bis yi nag moom lañ fa yéenee waajal neen ko daan waajale at mu nekk fii ci Taïf reen sang bu tedd ba Cheikh Ahmadul gis ngeen jotaay bi rakam yu tedd yii Cheikh Ahmadou leen baara ñu ngi ñaan suñu borom dolli ko wér dolli ko kattan ci ànd gi mu ànd ak magam ji ne ko dann déggal ko déggoo ak rakkam mànkoo yëgoo waaye nag jiite mbooleem donga yi rawatina section ci bi nekk Sénégal ak li ko wër yëpp ñaan suñu borom yàggal ab jotaayam ak Cheikh Ahmadul Fadilu mii ci wetam. ñu ngi siyaar itam ki nga xam ne mooy soxna moomi Mbakke day doxe doxinu ku ñu moom moom it di jàmbaar lool mi ngi fii ci jataay bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ak mboolem section yi xam ngeen ne nag gàmm gii ñuy woote ñu ngi koy wootee fii ci Taïf waaye nag tax si taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi istiyaadil minati li muxlisin lu mat a bàyyi xel la loolu la sëñ bi fonk lool bëgg ko lool defe ko nu ko sëñ Tuubaa doon defee ci gàmm gi looloo waral Cheikh Mouhamadul Moustapha Basir Lo mi nga xam ne nii baaxoon nañ muy jàng barsanji bi moo fas yéene wax ci kaddu Cheikh Mouhamadul Moustapha incha allah wa taala bu noppee dana jox kaddu gi sëriñ Ibrahima Thiam mooy wax ci turub ahibaawul xadim li nusrati diinil xawim gépp nag incha allah bu ci jógee sëriñ Cheikh Kane mi nga xam ne mooy wax ci section Taïf ndax ñoom kat naka jekk ñooy dalal gan ñi ñooy teeru gan ñi ñoo leen di tatagal incha allah wa taala buñ ci jigee ci turu soxna yi soxna Bese Ndiaye mooy wax ci turu soxna Mambousa mi nga xam ne. mooy jiite mboolem soxna yi di jàmbaar lool yàlla ko suñu borom dëgëral ko kàttanal ko mbokk yi woote boobu nag leen ñëpp bëgg ñëpp bàyyi ko xel mooy gàmm gi nga xam ne moom lañuy ñuy fii ci Taïf ren dëpp ak juróom-ñeent juróom-ñeenteel bi yoon ñu daal jox kàddu ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassirou Lo bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di jottali nuyoo cheikh Mouhamadul Moustapha Mouhamed Mbacké waaye nuyoo boobu nag ak i ñaanam mu di ci jiital kii fi nekkal Serigne Touba Khadimou Rasoul di ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Serigne baa ngi koy ñaanal lool sunu borom yàggal ko ci sunu kanam nu yàgg ci gannaawam ba lépp lu mu bëgg lëggeel Serigne Touba ak lislaam yal na ko amee na mu ko bëggee tan ànd ko ak moom noonu lay ñaanal itam ak cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacké mi fi nekk nekkal ak cheikh Mouhamadul Moustapha. ak sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Mbacké Madina mii jëwriñu kër gi waaye nag ki nga xam ne mooy jëwriñu barab bi di Cheikh Abdourahman Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma noonu it lay jottalee ab nuyoom ak i ñaanam ci mboolem buntu këri sëriñ Touba yëpp ni mu ko faral di waxee rek te yéene ñëpp rek am tawfeex sëriñ Touba ca fa leen borom samp ngir ñu liggéeyal yàlla foofee bu loolu jàllee nag mu Moussa dafa wax ne mi ngi fàttali nag guddi gi nga xam ne moom lañ dëgmal di guddik feeñu yonent bi saa yaari mbir am ci mooy fàttaliku jëmmi guddi gi ci boppam waaye nag fàttaliku ci ki nga xam ne moo ci feeñ guddi gi mooy laylatu maw mawlidin nabi la sëriñ bi wax guddi gi nga xam ne ci la feeñe kon day guddi barkeel ndax la ca sëñ bi wax bari na lool ci ci guddi goog yi la ca yàlla def ci ay tawféex waaye ki ci feeñ li tax yàlla jabal ko mooy yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon yaar yooyu la ñuy fàttaliku muy jëmmi guddi gi mu feeñ nga xam ne adduna sépp yëngu na keroog ngir leeram bu màgg googee waaye fàttaliku nag moom jëmu ju teddu joojee te sëñ Tuubaa it bëggoon ko lool soppoon ko lool ba yemale ko woon a dara ba joxoon ko léppam fonkoon bis bii lool itam Cheikh Moussa Mohamed nag wax ne mi ngi nuy fàttali bu baax bis bi fa sakkiri in nafaati zikra mi ngi nuy fàttali bis bi bu baax dinu ci soññ waaye nag dinu ci woo kon na ñëpp jàppale eh, jàpp yett yooyu mi ngi koy mi ngi koy fàttalee mi ngi koy soññe mi ngi ciy woote loolu yi nag mi ngi ko jëmale ci képp ku bëgg lu baax waaye na nag xaasatan ahibaul xadim li nusrati diinil xawim nga xam ne moom dafay faral ne képp koo xam ne nooy sa bunt ci sëriñ Touba fas na yéene ànd ak nun liggéey bi ndax liggéey bii di jumtukaayam te ànd bi mooy nun ñi tam santaane it wax ne Ahibahil Khadim day la jox ndigal te mi ngi koy feddali it ne bi lu ñu ko gënoon a taxaw rek nañ ko gën a fonk ginnaaw boo xam ne am na cant yu wóor ci bis bi jàll di asiruna muharam te yaari yëpp mu boole ko takk ko new say teg ko ci loxoy Ahibahil Khadim ne dee ma ko taxawul waaye nag mu ànd ko ak noonu kon sëriñ bi ne mi ngi feddaliwaat taxawaay ci ci bis bi ci nañ ko daa defee ginnaaw ba ci santee te ñaan bu baax a baax di ko fàttalee te di ca soññee itam nee na nag lépp loo xam ne sunu borom tabaraka wa la daf ko dëxañ ci bis bi muy jariñ doomu aadama muy jariñ jullit ñëpp loolu mi ngi ñaan suñu borom yal na ko yàlla defal nee na nag képp koo xam ne yaa ngi waaj ngir ñëw ci bis bi mi ngi lay dégal nga nga nga nga yore waajtaayu pas-pas ak waajtaayu pësséef ak waajtaayu fës yéene jariñu nee na nag ñëpp nag la woo rawati koo xam ne mooy sa bunt Sëñ waa fii la ko fës yéene defee ci Taïf fës yéene ko ànd ak noonu ba tax na kuy ñëw ku nekk rek na nga ànd ak pas-pas ànd ak pësséef ànd ak yar ànd ak ay teggin tey te raxas sa ndab bu baax a baax te xam ne la koy duy mi ngi fi te ndab yëpp it insha allahu taala luy dem da nga fàngat kon mi ngi mi ngi ko mi ngi mi ngi bëgg ak aka a soññee ci pas-pas yooyu bu nu agsee it nan xam ne bis bi moom daf koy gàttandu nee da koy gàttandu gunge ko gàttandu gunge gi nag mooy saa boo xamee ne àgg nañ ci àllarba ja ca fukki fan yi ak benn buñ jullee suba rek ba ba ñuy julliwaat suba ci àllarba joojee nga xam ne mooy guddik gàmm gi di guddik alxamis ga yaari fajar yooyu moom nee nañ moom sëriñ bi nee na loolu mooy liggéey bi kon ku agsi na xam ne bëccëg bi ci ci liggéey bi la bokk njàng mi ak la ci lañ ci digg lépp ak bernde ya ak lépp loo xam ne bis laaj na ko nee na képp koo xam ne yaa ngi ñëw it loo mën a faggandiku ci lay la nga xam ne mooy tax bis bi nañ ko santaane ak nañ ko bëgg moo amee noonu loo ca man nanga ko ca def ndax bisu bernde la bisub jàngal jàng xasida yi la bisu tudd yàlla la yooyu yëpp kenn ku nekk na ko gannaaw yow bu baax a baax nee na nag mi ngi ñaan nag li nga xam ne moom la ci sëriñ Touba diggee sun borom diggee ko ci loole ñu daj ñu daje ci ak moom te loola weesuwut njariñal adduna ak njariñal ala njariñal alaxira ndax wax sëñ bi wax na ne bihis di yaadul minati bihis di yaadul minati gàmm moom doolee ko rek xéewal rek xéewal ngay doole ko ba faw fii ci adduna waaye nag ëllëg it lépp lépp too feex nga fee gis ndax daf caa bokk falaa yu xaasabu xada képp koo xam ne yaa ngi koy yaa ngi taxawal gàmm na sa xel dal ci ne ëllëg kenn du seet say mbir falaa yu xaasabu xadaa mooy dee su seet sa mbir te loolu doy na sëkk waaye nag walaa yulaaxi darara doo dajeeg loolu mukk ëllëg gi nga xam ne ñëpp foofee la ñuy tiital kon nag ginnaaw deesu boo dee boo dee taxawu gàmm gi deesu seet sa mbir bu ëllëgee itam doo dajeeg genn lor sëriñ bi ne loolu itam na ci ñëpp fasaay lool te doon mi ngi fas suñu borom mi ngi fas ci yàlla suñu borom tabaaraka taala yàlla yàlla na nu defal loolu yi leneen la ca des nga xam ne te loolu doy na tawfiix mooy ña toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dann te mooy muhammadu rasulillahi wala sina maahu ñam àndaloon sa sëñ tubaa wax ci xasida ga ne gàmm gi guddi gi ku ko dundal ba bët set boole boole nañ la ca loolee fa innahu kaman xadar yawma xunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral waral mu fahimi nga xam ne kon guddi gi boo ko fanaane ba bët set mën ngaa yëkkati sa loxo ne ca sahaaba yi laa bokk loolu sëñ Tuubaa moo ko ñaan moo ko moo ko ñaan suñu borom te yàlla defal na ko kon sëñ bi neen tawféex yi loolu da cay lu suñ xel attan sun suñ nopp mën koo dégg waaye lan ca dël ëllëg rek la ñu koy xam rawatina nag barab bii ñu koy defee boo xam ne day barab boobu sëñ boo xam ne am na lu fi sëñ Tuubaa def yoo xam ne loolee bu du woon dara it jar na ñëw sax di fi dajaloo di tudd yàlla ba bët set kon sëñ Ahmadou Samad Mbacké nee na mi ngi ci woo ñëpp te fas ko ànd ak noonu di ñaanal ñëpp jam mbooloo mi ngeen janoon ci pàkk bu tedd bii ak jërinam yu tedd yi ñu janoon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mi nga xamee ni moo nekk ci mbooleem kuréel gi nga xam ne mooy saytu section yi Sénégal yi waaye mbokk nag ak mbooleem jëru yi nga xam ni ñoo seq banqaas ci confédération bi. Baye Serigne Mbacke Gueye Ngathie mi nga xamee ni moo jiite mboolem seex si Baye Serigne Ndiaye Gueye mi ngi nii teew ak jëwri yi mu àndal ñëpp saari muridina saadixiina Baye Serigne Baaraloo jiite ko suñ Cheikh Kan Donga mi ngi fi Baye Serigne Cheikh mi ngi fi ak mboolem jëwri ko àndal yëpp confédération Ansaarudin bu Europe sëñ Mouhamadou Mbow mi ko jiite moo ngi fi ak mboolem jëwri yi mu ko àndal yëpp groupement diaspora Serigne Bara Sall mi ko jiite moo ngi fi ak mboolem jëru yi ñu ko àndal ñëpp ñu àndandoo ci ginnaaw Cheikh Amadou Lamine Baara ñuy mbooloo mi nga xame ne ñoom la sëriñ bi teg saytu liggéey bi mu doon woote léegi te mooy màggal gàmmook rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te mooy guddi gi mu ganoo jamono Cheikh Amadou Lamine mi ngi yëkkati kàddu ànd kook jëwriñ yooyu jëm ci mbooleem koo xam ne membre ahibal xadim li nusrati dinil xawim nga foo ko doone rek ci juróomi bànqaas yooyu Cheikh Amadou Lamine nee na mi ngi lay jottali ndigalul Cheikh Amadou Moustapha ci guddi gii ñu dëgmal muy gàmmoog rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ci Taif te mooy ñun ñëpp nañu maase wuyu si sëriñ bi ci woote bii mu woote te sunu njariñ rek tax mu woo ko ginnaaw ñoo ko jox suñu bopp yaakaar ko àdduna ak àllaaxira ni ko loo ñu digal ñu def ko loo ñu tere ñu bàyyi ko Cheikh Ahmadou Lamine nee na nañ feeñal suñ pas-pas ak suñ pësseef ci ndigalam lii ci gàmm gi tam mooy ñun ñëpp ñu teew mboolem ñi ne ci réew mi nañu maase ña wuyu si koo xam ne nekkoo ci réew mi nekk bitim réew na nga soññ sa njaboot ñoom ñëpp ñu maase ñëw fanaan si fii ci Taif ànd ak sëriñ bi màggal guddig rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Seex Mouhamed Lamine nee na moom day nangalu ci kenn ngànt wuute guddi gii nga xam ni sëriñ bi woonu ko ci ko amul ngànt koo xam ne am nga ngànt na nga xam ne suñ borom moo la ko teg foo mën a nekk nga teewlu boole sa bopp ci guddi gi ak foo mën a ne waaye koo xam ni sag jot may na la ko sa wér may na la ko na nga fekk si fi sëñ Mouhamadou Moustapha fii ñu ànd ak moom dundal guddi gi ni mu ko santaanee fas ko yéene dafa it na ko sëriñ Touba daan defee ca njaareem nga xamee ni gàmm yàgg na ko woote lool ax ah yeytu mawlid bi mi asasi wan xaadalii faw xel mun naa fi talsasi sëriñ bi nee na maa nga tàmmalee gàmm ca asas muy gàmm gu wéet gàmm gu néew mbooloo waaye nag suñ borom may na ma ci lu kawe sama njot ca talsasin kon nag loolu sëriñ Tuubaa daan gàmmoo ci njaareem noonu la ko sëriñ bi bëggee fii ci Taif moo tax mu teg ko ci loxol Ahibahil Khadim li nusrat diinil Xadim kon Cheikh Ahmadou Lamine Bara waa Ahibahil Khadim amuñu ci wuy si ñun ñëpp waaye yemut ci Ahibahil rek képp ku dib jullit di wax ashhadu an laa foo mën nekk bëgg baax teg nga sa bët ci ne ko Cheikh Moussa daan dundale ci àddina weesu yëpp boola sab gis-gis ak sa bëgg dëppoo ak noonu ma koy dundale noo ngi lay woo fii ci Taif ñu ànd ko màggal ku di soppe ku bëgg lu baax noo ngi la cay woo képp koo xam ne it yaa ngi ñuy wuyu si ñu ngi lay ñaan soo ko mënee nga sol suñ col gii ñëw ànd ko ak ñun soo amul ngant soo amee ngant na jéggal nañ la ko waaye képp koo xam ne Ahibahil Khadim nga bokk ci genn kuréel ci kuréel yi Cheikh Ahmadou Lamine nee na mu ngi ñu lay ñaan rikk waay nañu wàccoo ak ndigalu sëñ bi te mooy ñu wuyu si ko waaye ñu wuyu soo ko ni mu ñu woowee te mooy suñ tenue yi ñu sol ko kenn kuy ñëw ngay dugg ci baas bi muy bëccëgu gàmmo gi muy guddi gàmmo gi na nga sol tenue bii ànd kook sëriñ bi ñu dundale ko guddi gi kenn ku nekk boo ñëwee na nga ànd ak dal ànd ak yar ànd ki teggin noonu ko mu Moussa Bassirou waxee sëriñ bi waxee ko noonu képp koo xam dugg nga ci dëkk bi sa ndigal mooy nga ñëw ci baas bi ku ko mën nga yendu ci baas bi ñu waajale ko màggal guddi gi rawatina guddi gi nag ñun ñëpp ñu maase ci baas bi ci melokaan wi ko sëriñ bi waxee ànd ak ko yar ànd ak dal fas ko yéene dundal ndax wuyu si kat waxuñu rek ñëw toog di waxtaan wala di xoole déedéet dañoo fas yéene dundal guddi gi ni ko sëriñ bëgge ixyaau mawlidil bachir yaxmil ayaala wa duyur fihi sifaun li sudur li kulli haajin yanta bi kon bu nu wootee dundal guddi gee tax ñu woote kon Cheikh Amadou Lamine nee na képp koo xam ne nga yulub ci baas bi muy bëccëg muy guddi na nga song jikkoy alxuraan yi wala nga song jikkoy xasida yi wala nga yor sukkur di tudd yàlla ba ba ñuy salaatu noonu ko sëriñ bi santaane kenn ku nekkit ñi ngi lay sàkku loo man ci teewal loo man ci barkeelu ci bis bi it ñoo ngi koy sàkku muy groupement ba mën a bokk ndax kat jàng alxuraan jàng xasida waaye bernde ci la bokk kon section yi regroupement yi képp koo xam ni mën ngaa barkeelu ci loolu yi nga xam ni gis na ni lu am solo ci guddi gàmm gi te mooy bernde yi lu jàppandi ñun ñëpp nañ ko boole indi ñu boole ko li li confédération bi dagale lépp ñu boole ko fas ko yéenee dundale guddi gi waaye li am solo daal mooy nañu wuyu si sëriñ bi ndax woo nañu te kat ab jullit diggam ak mbokkum jullitam rek xam la ci su ko wooyee mu wuy rawatina ki nga xam ne mooy wasilaam moo dox digganteem ak sëriñ Touba kon Cheikh Modou Lamine nee na sëñ bi woo nañu nañu fas yéenee. seen muharam ji ñu génn niñ ko màggale woon sëriñ bi sant nu gërëm nu xolam sedd ci nañu feddi laxasaa yi fas ko yéenee gàmmoo gàmmo gu raw loolu fuuf ñu làq ci ngërëm yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla wéral ak bëggam gi sëñ Tuubaa yàlla na ko am waaye lépp yàlla nañ ko ànd ak moom ci barke sëñ Mourou saa noo ngi sof sunuy kàddu ci kàddu yu gaa yu baax yi ñu jiitu ci guddi gu màgg gi ñuy woote fii fi barab bu tedd bii ci ndigalul sunu yaakaar yi bopp nuy feddali sunu njëbbal ci moom di ko feddalil képp ku nu ko bokkal di Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Mbacké Mouhamad yàlla na ko sunu borom yàggal wéral ko lool yàlla na nu jekku ndigalam di wax ci kàddu gi nuy yëkkati di ca jiital sëriñ Fadilou Mbacké mi nga xam ne moom moom la ñu àndal ci liggéey bii di Ahibahil Khadim li nusrat din la xawam ci section bi Serigne bi boole noog moom ci section bi ànd ko ak rakkam soxna Mominatou Mbacké ak sëriñ ba Bassirou jóob ak Soxna Khoudia Mbaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite section bi ñuy wax ne guddee ngi ni goo xam ne képp koo xam ne lebaloon nañ la na leen fay ci guddi gii képp ku leen bëgg a lebal na leen lebal ci guddi gii ndax sëriñ bi la ñu jaayanteel te sëriñ bi lii moom la ñu digal amuñu beneen dox bu nu jëm budul ci bii nga xam ne mooy joxoñu sëriñ bi te mooy guddi gii ci la ñu wooroon am nañ ko ci def lu xamit nañ ko ci wax nan ci ñaq te nan ci ñuqi te nan ci ñuq jëm ñuy wax ne kon képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci section bi mbooleem kuy wax ashadu an laa ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ak tarixa boo mën a bokk te dib jullit rek ñi ngi lay woo ci turu kilifa yi ci bisu guddig màggaluk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gii loolu la doon jot li ci kàddu kilifa yi yàlla nañ ci dajeeg tawfiq Mahamadul Mustafa al Karim sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te nu jekku ndigalam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di yëkkati nag suñu kaddu muy kaddu soxna Mame Bousso Mbacke mi nga xam ne moo jiite mboolem jigéen ñi nga xam ne ñoo aju ci euh, regroupement des daayira Ahibahil Khadim li nusrati diinil xawim soxna si nag dafa wax ne day soññewaat rek soññe boo xam ne yàgg nañ ko def waxtu buñ tolloo ci jat heur bu toll heure bii muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bi ni nga xam ne noonu lañ ko war a dundalee. soxna si nee mi ngi ciy soññ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag ci wàllu soxna yi waaye nee na itam di leen bàyyiloo xel bu baax ci bis bi ak bëgg-bëggub sëriñ bi nga xam ne bis bi ñor na ko lool ndax bi mu sosee liggéey bi kat dafa waxoon ñaari bis yoo xam ne dana woon moo gën a nekk yitteem muy asruna xaram ak mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam soxna si nag nee na mi ngi sant bu baax mboolem section yi ak regroupement yëpp ci liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey nañ ko ci asrina muharram ba mu jàll waaye mi ngi soññaan ñëpp nag ci bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal si muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam di guddi gàmm ak yitte ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox nee na ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bu ñu ñëwee ci bis bi nee na li bis bi laaj lépp mi ngi soññaan mbooloo mi ñu gën koo bàyyi xel ndax bis bi kat bisub tawféex la bisub mucc la bisub am ay xéewal la kon bis boobu nee na bu egsee kenn ku nekk waru cee toog ci neen te sëriñ bi kat lim santaane mooy jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi ak askar lépp lu ci waay man rek nee na mi ngi la koy sant buñ xëyee ñëw yenn doo ko fanaane ko ba asamaan set nee na bu kenn am benn yitte bu dul yitte jooju ña nga xam ne itam ñoom la suñu boroom féetale ci wàllu bernde itam nee na lu ci waay man rek na nga ko def ndax lépp kat lu ci waay man di def bu ko yéem waaye ndax bis bi yeyoo na lu ëpp loola kon mi ngi koy soññu ñëpp di leen ko fàttali bu baax euh, culture tamit ñi ngi santaane ne bëgg nañ section bu ci nekk jàng fukki kaamil ak ñaar ñu def ko addiyee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lal taayee ko bis bi bu ñu ñëwee ci njàng mi nag liñ fi jàngaat lépp ñu boole ko ci waaye bëgg na section bu ci nekk moom jàng fukki kaamil ak ñaar indaale ko te lépp loo xam ne waaye jàng na ko itam ñu fexe ba yaxal ko ba nga xam ne danañ ko mën a jébbale nee na loolu itam yitte ji la waaye mi ngi ci soñ ñëpp di bàyyiloo xel bu baax itam jigéen ñi ci col gi ni ko sëriñ bi santaanee ndax sëriñ bi kat yitteem mooy yitte Cheikh Mouhamadul Mountakha sëñ Mountakha kat am na ay digle yoo xam ne digle na ko ci yoonu murit wépp waaye digal na ko itam mboolem ko dib jullit ci muy solub nit ku yiw ci aw melokaan woo xam ne noonu la jigéen war a mel rawatina xale yi nee na loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kenn bu mu fi sol lu gàtt wala lu yaraax wala loo xam ne ku ko gis nga xam ne lii du colug nit ku yiw nee na na ñëpp yiwee loola nag ñi ngi ci woon waaye neen ab soññe rek ñu gën koo bàyyi xaat xel bu baax nee na itam mi ngi santaane bu ñëwee ñu ànd ak dal bu baax a baax a baax ak ay teggiin ndax barab bii ñu koy defee kat am na lu mu laaj ndax see ci kanam si sëñ Mouhamed fi lañ koy defee ak si Abdul Fatah kon nag laaj na lool ñu ànd ak yar ak dal niñ ko daan defee rek soxna si daal nee na mi ngi ci soññ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu defee ko dañ ko daan defee ndax ñu daje ci ngërëmul sëriñ bi te loo xam ne kat dañ koy def ànd kook suñu kilifa gu baax gi mu nekk ak ñun ba ba ba yëf yi di jeex kon loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax nee na mi ngi ci soññ ñëpp. di ñaanal ñëpp nag waaye nee na itam mi ngi soññawaat ci bernde yi bu baax a baax a baax ci section yi ak mboolem koo xam ne itam da ngay def katu lu baax rek ndax mawlidu nabi moom lépp loo xam ne nit def na ko ci ci ci bernde ni ko sëriñ bi waxee rek lu mu tuut tuut tuut bu mu ko xeeb waaye lu mu bari bari itam bu mu ko yem ndax si rasulullah ya jayoon na lu ëpp loolu kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp waaye di ñaanalaat bu baax sëriñ Moustapha moom sëriñ Mouhamed suñu borom gën ko fee yàggal te may ko wér Mouhamadou Lamine mii ci taxawaayam bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci liggéey bi ba tax lii lépp résultat bi ñu am bépp ñu am ko soxna Mame Bousso nee na mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal di ñaanal Cheikh Mouhamadou Fadal di ñaanal itam soxna Mominatu mi nga xam ne nee na wéttali na ko lool ci liggéey bi ndax saa bu geesoo gis ko nee na mi ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko ba liggéey bi lim ci bëgg lépp te yéene ko suñu borom dimbale ko ba man koo def ni ko bëggee te ñu moom mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf mbokk yi kon bis baa woote baa ngoog waaye mi ngi dajeeg àllarba guddi fukki fan ak ñaar dëppoo gi itam le 27 ci weeru septembre incha allahu taala fii ci Taïf ñi ngi bàyyi loo xel nag mboolem koo xam ne mi ngi ñëw col gi nga xamante ni sëñ bi taamu na ko nañ ko daal di gën a dëggal te indaale ko ci bare bi niñ ko waxee boo ñëwee xasida yaa ngi fi alxuraan jaa ngi fi kurus yaa ngi fi noo ko bëggee rek noonu nga koy amee waaye nañ ñu gën a teewlu ci bis bi di fàttaloo nag ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Moustapha ku bëgg a xam kan mooy Cheikh Ahmadou Moustapha mi nga xam ne moo woote gàmmu gii delluwaatal ci sifaatu saadixal muridu bi ixtisaar arbaatu nasamtuha xaw fa tiraar loolaay la Bamba wax ca gaa yee saadix déglu lu nga xam ne kii soree naag faasix asiqu fi mahabbatin sayxi abat nam soppe sayxi Bamba bir na kuy murid su mam am amriki ay subarat baatum ndigal fu mu ko dégg na bërit te dootu am ci soxla fenn fenn li fekk ndigal lay yegg loola bir na watar ko ixtiyaaram mat laxan walaw du dox di gaari sëriñ moo tax mu raw bi baatinin àll yi fii maaxadraaw seex bamba fóot naab xolom boo doote bew kon bis baa ngoog bis bi seex Moustapha wootee ngoog ci Taïf yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa